c'est un élu c'est le maire de la capitale moom bu ko leeree ne lii mën naa indi chaos ci fii ñu ma dégg te lu toj fii maa ko war a defaraat ma calme situation man ni ma com ni may comporté woo nii nii nii ci ñaari at yi deux mille vingt deux ak léegi noonu laa doon comporté woo deux mille deux mille quinze ba deux mille vingt deux di dem di taxaw ci ay buntu kër Aline Sall di dem ci sàcc bi nga xam ni réew mi sàcc na ko di ko karaj eh, di dem ci boroom eh, jabet bi yàlla ko yàlla may tan borom suukar bu yéeg bi te ba tey wàccagul ba tey at lu topp. ah est-ce que duñ dem xool laaj ko ndax wàcc na ak ngi mais mais mais borom suukar soosu nga yaakaar ne naa ko fekkaat fii mi eh, tim boppam bu ngand boobu di ko kom non mais non attends mais ñu ne xoolal kon la moom boobu rëy day wër di xeex rek di wër di xeex rek di di xeex mais moom day xeex ba kat moom xeex naa xeex xeex ba falu mu continuer di xeex mais kii itam lii mbaa jàmm la wala mais man de Ousmane Sonko man man presque ñetti semaine a ngi nii ñuy wax ñu ne Ousmane Sonko. maanaam un un premier ministre qui qui veut brûler son pays <laughs> mais ça c'est c'est c'est absurde loolu c'est c'est contradictoire voilà logique pour logique là logique pour logique mm-hmm. un premier ministre qui veut rendre son pays ingouvernable c'est insensé. alors <laughs> que c'est lii kii gouverne. Mm-hmm. ngay gouverne boo paree. war am ndam. non yow yaay gouverne. Mm-hmm. yow léegi caq bi yow yaa ko nàkk. ñu ne yow moomu ci moom da bëgg yóbbu dëkk bi kaaw dëkk bi. waaw mi ngi mel ñu yeewu chaque jour quatre heures du matin bu defee bu def si émission fajar après ñu ne am ku ñuy nu yéen votre combat mooy fajaru wàcc. waaw te ñun ñu yeewu 4 heures. ñu ñu yeewu 4 heures du matin di sacrifié bu fajaru fajaru bañ am orange. xam nga loolu boo ko waxee danaan kii est-ce que wér na la lay wax. Mhm. parce que amul benn euh, mhm. c'est insensé. jërëjëf directeur. Mhm. donc daal honorable <laughs> naa laa ah, ah mais man mais non dam man kat man man da dama xam nga xam nga yii léeg-léeg nit ñi ne la tëb leen sujet boobu léegi ñu tëb kon sujet yëpp de débat dootu fi am. dëgg la sujet la maire bi nekk coalition wu. sàmm sa kàddu dañ ne ñii dañu bëgg indi dañ bëgg euh, salfaañe ndakaaru dégg nga sabote campagne bi moo waral ñu bëgg a bokk ak ñun itinéraire ah tey yàlla baax na en tout cas voilà comme ci gàttal daal honorable wax jooju. ci tënk ni nga xamante mooy amut. amut d'accord c'est que man boo leen argumenté woon tuuti rek yéen ñuy toog fii nii da ngeen ay gone. Ah. ngeen wax ma ne ma tey euh, kaaw boobu ñuy wax intérêt bii la ci Sonko war a jëlee. amut ah mi ngi mel ni ngay toog bëgg toog gi neex ñëpp apprécier nga xorom ko ni naan bu ko kenn lekk ça n'a pas de sens. gi ma leen wax moo gën a gaaw ci misaal. waaw. yow yow fajar ni mu méttee. Mhm. léegi nga yow fajar ñoo fiy sacrifié wu pour émission bi am après am ko tëbee na la ne la yow ton combat mooy fajaru. man wàcc ci suuf. man waxuma jomaay de mais Ousmane Sonko moo ëpp mhm. intérêt. à que seen gouvernement bi am réussite totale ci kanamu sénégalais yi. ah parce que xeex bi nga xamante ni moom la ci sénégalais yi doon xeex ci moom la jaare jumaay mhm. jumaay mën nañ ni dañ euh, dernier moment lañ ko ñëw teg ko pour mu daal di euh, ñëw euh, nekk doon candidat mais Ousmane Sonko. xeex bi ba nit ñi di xeex ba nit ñi di ñàkk seen bakkan ba Sénégal di tàkk au niveau international ñëpp di ko wane ñu bari di dut baaraam Sénégal moom Ousmane Sonko moo nekkoon ci ci kanam Ousmane Sonko moo doon génn di def discours di waxtaan ak nit ñi Ousmane Sonko moom moo taxoon bu joxee ndigal nit ñi daal di koy topp ba nit ñi retourné di ko woowee Ousmane Sonko mu sell wi tey jii dañ naan gëmmu comme li waajo waxoon gëmmu dóor Ousmane Sonko day dicté rek ñu daal di koy def amul sax question amul sax kes ce setaa cest donc tey Ousmane Sonko moom nga xamante ni dafa war a euh, satisfaire les Sénégalais wan leen ni tey jii xeex bi ngeen doon xeex jar na ko li ngeen doon xaar ci man moo nekk nii li ngeen bëggoon ci man tey jii lii la li laa leen bëggaloon comme ni mu pré ni ñu présenté euh, euh, projet Sénégal deux mille deux mille cinquante bi indi lu leer naa ñu teg ko seen loxo gagné seen confiance wan leen que ni xeex bi ngeen doon xeex nekkul ni. lu vain daal nekkul loo xamante ni da ngeen ko def ba pare mu doon ab kasara mm-hmm. Ousmane Sonko moom tey moo ñëwaat ngir bëgg suufantal nguur gi bu ko defee nag ñëpp taxaw naan waxuñu woon lii wala. amul sens daal doo xam solo ci argumentaire amul sens en fait waxuma la sax que ni. Uh-huh. Ousmane Sonko moo xeexeexe bi mais Ousmane Sonko moo tabb ki nga xamante ne moo nekk président jamono ci uh-huh. parce que xam na ne moom mënul dem. Uh-huh. il a choisi Bassirou Diomaye Diakhar fay après sénégalais ànd ci ak moom moo tax mu nekk président jamono ji léegi problème bi posé wu mooy. man mënuma concevoir yow. gis nga ñoom ñi nekk ci opposition ñu ci bëri amuñu discours programme amuñu ko. la preuve démb Barthélémy Dias bañ ko laajee lan mooy sa programme. Sénégal lan nga en fait bañ ko laajee lan nga constaté en fait da doon nekk di ko jéem a amadoué di jéem a xool naka lay wiiree question bi di en fait di va et di dem ak ñëw cela veut dire que xam nga ñoom kan mooy seen programme Ousmane sonk ah pour moom discours personnel yi. Sénégal mhm. moo yow. mais mais lu gën a tuuti sax li gën a tuuti dégg ma bu gën a dee uh-huh. dañ ko laajee question bi de xaw ma ndax bàyyi ngeen ci xel am déet yaa ngi doon gis ne da doon da doon jéem a di xool ni muy tourné wax ji bu di jéem a dem ak ñëw di jéem a uh, tëgg wëndeelu Papa Ngagne pour génn ci cela veut dire que ñu bëri ci ñëw uh-huh. tey jii même seen ay campagne da nga koy gis Amina lan la ñuy wax diw deful lii diw moo def lii seen discours yëpp amul ci benn discours boo ma ciy génneel ñu wax du début jusqu'à la fin te tout Ousmane Sonko bokkuñ ci ñoom jamono ji campagne ñu ñoom campagne la seen bopp de Ousmane Sonko la ñuy campagnal jamono ji tey ji mi ngi mel ni Amina nga nekk jaaykat ma nekk jaaykat ngay jaay iPhone may jaay iPhone ma ne sama iPhone bii de cent cinquante mille laa koy jaayee Amina di jaayee deux cent mille Amina au li que mu xool ni mu jaayee moom ba téléphone am jaar fa lay nekk naan téléphone amee bu leen ko jënd baaxul écoute bi baaxul place chargeur bi baaxul cela veut dire que moom Amina focusul ci téléphone am de mais mu ngi focus ci sama téléphone ba lépp loo xam ne rek am na anomalie wala bu amul sax bu xamul sax sama téléphone lu ci nekk dina ko jéem a créer pour que ma ban a jaay sama téléphone. lu ndaw lay teg et pour moom loolu mënul weesu ñàkk programme ak ñàkk discours. ami lu ndaw lay teg sa loxo ñaanu ma ko yàlla ñaanu ma ko yàlla. tey ji mhm. échec gu amoon ci seen euh, gouver ci gouvernement bi ñu nekk. loo xamante ne tey jii yaakaar dafa tas ci sénégalais wala ñuy dem di jubali ci président Diomaye ci Sonko la ñuy njëkk a dal Sonko waxuñu woon lii la ñuy njëkk a wax ko ñuy wax jomaay donc Sonko moo ëpp intérêt à que euh, gouvernement bi jaar yoon. Mm-hmm. peut-être violence la ñu bëgg amalaat ci ci ci ci ci jeexitalu campagne bi ngir saboté lu nu mel est-ce que tamit mun nañu ko xool feneen parce que euh, en général dañuy dénk te di wax que ni mooy borom Dakar. Mm-hmm. donc tey mu nekk mu jënteelu campagne yi. Mm-hmm. Pastef tey nara wër Dakar ndoxteel bi ñoom nar ko seen caravane nara bàyyi ko fi nga xamante mhm. mooy Dakar Plateau fi nga xamante ni peut-être kii wu Barth la est-ce que nekkul jamono ju ñu toll nii li muy daw peut-être moom Barth li muy jaar mooy ñu xam kii kii comme ni mu koy faral di waxee kan moom moom véritablement fi mu ne nii le coup est déjà parti daw taxut a rëcc mhm. fi mu ne même dawee sax euh, ñenn ci euh, waa dakaar nañ ko wane ko tontoo ñëwal comme yaay borom Dakar parce que changé. il faut assumer. ñoom waa sàmm sa kàddu. xam nga pour man xam nga diggante Barthélémy Dias ak Ousmane Sonko mën naa ne résultat élection législative locale yi fi génnoon la ba léegi. Mhm. gis nga diggante Barthélémy Dias ak Ousmane Sonko ak diggante Barthélémy Dias ak Abbas Sall dafa yàgg. Mhm. depuis ci local ya la woon. tey jii gis nga ne Abbas waroon na bokk. jël ko def ko position beneen naan dañuy respecté parité institut institut ba ba Abbas Fall gedd pour man résultat yooyu noonu mooy nekk di répercuté ba léegi tey jii loolu moo waral sax d'ailleurs ñu choisir nga xamante ne moo di Abbas Fall pour mu ñëw concurrencer ak Barthélémy Diaz léegi nag pour man Barthélémy Diaz lenn la war a accepté mu ba fekkante ne dina ko neex ak du ko naqari Barthélémy Dias bu nekkee maire bu Ndakaaru en grande partie c'est grâce à li mu bokkoon li nga xamante ne moo di yeewu askan wi tey jii mën nañ même bu dul ne peut na tey jii dañu taw doon benn star boo xamante ne mere woon nañ koo xamante ne sax bokkoon nga ci yeewu askan wi Sonko tabb la mm-hmm. moom loolu la bénéficier woon léegi nag Ousmane Sonko daf ko bëgg a ne fii nga nekk nii ginnaaw yàlla man maa taxoon ma nekk fi léegi nag man maa la fiy dëjëtuwaat d'ailleurs loolu moo tax mu indi ki nga xamante ne moo di Abbas Fall tey ji wax nga ko léegi xam nga boobu ba léegi ba campagne bi tàmbalee ba léegi mën nañ ne enjeu bi fi mu gën a méttee mooy Dakar jaara mhm. fii la enjeu bi gën a méttee gis nga ne euh, Abbas mu ngi taxaw naan maay borom Ndakaaru Barthélémy Dias aussi mu ngi taxaw di réclamer wu man maay borom Ndakaaru léegi nag wax nga ko léegi parfois da ngay ba dugg ci loo xam ne nii xamoo ko wala nga bëgg cee génn. am yow comprendre mais li muy def yëpp question d'honneur xam nga tey jii xam nga tey jii uh-huh. euh, Amina euh, rocceeku moo weesu. une question d'honneur lay demee maanaam. da ciy dem ba jeex. rocce euh, non non bi xam la moo tax muy dem ba jeex. Mm-hmm. parce que retourner mënatul mënatul mënatul ce n'est plus mm-hmm. parce que tey jii mënoo mënoo mënoo dem campagne bañ ne la. tey la campagne bi di jeex. samedi nga noppalu dimanche ñu amal élection nga ñu bëgg ñu bëgg loolu ñu bëgg a dellu gi mais nag. tey jii dina la leer ne Ousmane Sonko mbooloo boo ko nar a topp kenn du xam ne mu toll Barthélémy Dias ak Sàmm Sa Kàddu pour man jamono ji nañu ñu terminer en beauté rek te xaar dimanche li nga xam te ne moom moo war a tukkee ci scrutin yi. d'accord ñu àddu wax ci suñu beneen euh, point. waxtaanee lu ñeel mouvement nationaliste ci seen njiit euh, Tahirou saax jamono ji ñu toll nii nag daal dinay tontu Ousmane Sonko ginnaaw bi nga xamante ni jàpp na Ousmane Sonko daf ko daal di laaj ci ay euh, ginnaaw ba doon a addu